naa bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakaatu làmb ji ndaw la ko tuddee ay ndaw di bëre làmb ji su ngeen ko rafetalul kenn du ko mën a rafetal ku ci ne yaay sa nawle maroom ku ci ne sa trésoru maroom nga kon mbër yi ci seen bopp nañu fonkante seen biir ñu fonkante seen biir jàppalante ci seen biir ñiy ànd ak ñoom danañu xam seen bopp xam ni kii ma àndalkat kii muy dajel nawleem la te mooy alalam kon loolu leer na mbokk yaakaar naa ni jotaay bi tijjeeku na kookoy sunu maam Alaaji Cerno Njaay ñu koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi lool ci barke Seydina Mohamed. waaye balaa maa dugg ci biir ñuy songu liggéey bi mariage may sa bigé may sa bigé maar yéen bu làmb neexee yéen la yàlla na yàlla defal leen jàmm parce que yéen fu nit tëgg làmb yéen yéen a ngi fa. léegi caatu ci suufa suuf lañuy tàmbalee ci suufa suuf yan mbër ñoo war a ñëw waaw. bugaan bu sibs yóbbu leen estamaay ak bu sibs waaw waaw bàyyi ko mu fecc parce que ñun xam nga fecc moom doo ñëw pour signature la quoi doo ñëw moom moom ñu nag. Eh, fecc pour neexal làmb ji. kaay nii fecc pour neexal làmb ji la bul yoot. eh man ngay bëreel de borom firi rek bàcc maa ko génne bu xaay rek ñoon na cas sambaar mu ne cas cas cas su ma la jàppee ba bàyyi la di nga xam ne lépp dëgg la yow. waaw ah, baax rek <laughs> bilaay ay gënt yow wala bilaay walaay xam ne yow yow xooluma la sax billaay wala rek da nga xamul nag mais ba bi gee suñu diggante nga xam ne xooluma la yow taxoo maa jóg ak sa bët yi piitee ni mel ni chinois su ma la jàppee ba bàyyi la di nga xam lépp dëgg la non merci beaucoup instant loo wax lépp jëgal naa lan nee waxal mais bu jour ba boo boo tey dëgg si bopp deux minutes quoi mu yoon ma téye mu jeex boo xeexee mu la ba nga toog su ma téye mu jeex waxatu ko nekkul ak yow làmb sax boole wuñu c'est que damaa ñëw pour wan gaay lu ndaw ndaw dangaa ñëw pour yoon voilà damaa ñëw pour wan gaay lu ndaw mais kii yow fu nu bëree ak fu nu mbëri ñu bëree sax ak ñoom boo ko as jima talama opposé ma moo kii boo ko xoolee ni xam ne paa la kii doole xale laa yor man xale bu ndaw laa dëkk dali Dalifort ragal dëkku fa yaraa yow da ngaa baax rek six cent cinquante watts bàkki Serigne Saliou Mbacke dama koy lekk bàkki borom Touba Mbacke aw ma lu may delloo avance dañu war a ñëw eh, non c'est waaw wuy ma fi sincère day tere lekke lekk du ma ko lekk mais virip laa koy def un coup waaw un coup un coup virip day gaaw moo gën a gaaw rang muy gaaw. Mbàkke borom Touba Mbàkke virip. virip un coup. <laughs> du ma ko may dara. waa boobu Mbàkke Serigne Touba fu mu nekk ma jëli ko. virip virip dina xeex dina bëre. bu indee bëre dina bëre ba proté dent bi wadd bu indee dóor ma duma ko daan ko dem sama yoon xooluma ko sax mën ñii laay ñii laay xool fii laa bëgg toog. waaw Mbàkke maam Cheikh Fall. la Zal Bawol ak Caatu Yaraax. waaw fu ñu toog. waaw falaa bëggut mooy yoon. avec la manière na par force. waaw bàkki Serigne Touba dama gëm sam bopp. waaw waaw di di gërëm di gërëm ñi fi toog. yow da ngaa may te da teral géwél yi gërëmal. waaw géwél yi ñii samay géwél neen. waaw géwél bu amul woon. waaw xorom dootul amati. mais bu ko lekk. duma ko lekk mais dama koy def virib benn coup mais di gërëm di gërëm ñi fi toog ñëpp. Bébé Seck Lo na nga maa ngi fi rek. yaa ci jàmm. jàmm bëri xam nga bébé Zoro. xaw ma ko de. Zo naka mu. sant bu tedd gi rek. yaa ci jàmm. waay sant waaw ñu ngi nii rek di sant waa ginnaaw raay di sant Cheikh Ridial bu baax a baax. ndeysaan naka entraînement yi. waaw ñu ngi ci kawam di taxale rek. xam nga ki kii ah man garaaw kuy kontaan ak soq kii teewu ko. moo gën a ndaw soq de. ah garaawul déggoo li ma lii teewu ko. boo demee andi soq ma daan ko. <laughs> boobu de mooy bu jeex bi. waaw ah, baax na moom mun na daan soq. soq ku ne ko mun a daan. Ah. ndax champion la nit la aussi comme ñeneen ñi. Mhm. waaw. ok yéen ñaar yéen a war a bëri le 10 déjà léegi la combat parce que tolluwaay différence bi bariwul waaw sant yàlla ndax dafa neex promoteur bi rek daa kontaan di ñaanal aussi sama ménagère Abdoulaye di ñaanal booy Jolof taalibi Cheikh ndax su ma bëree aussi c'est grâce à lui di ñaanal sama jóorin Abdou ma àndal ak Daouda di ñaanal waa Ginaaw Raay ma jógee di ñaanal sama adversaire jàmm. bu jour yi yàlla may ma ndam ci kawam incha allah. waaw man de damay sant yàlla bu baax a baax di sant ñi ma fi àndal da ñoom caatum doom sama gars yëpp di sant waa Tuubaatul bu baax a baax di sant waa Medina sumbu jun bi ma nekk nii maa ngi seen sant bu baax. di woo waa Tuubaatul bu baax nag ci combat bi ñu jàpp bu baax a baax Ngunjaan jaag ñëpp maa leen di woo mbus naax jaag ñëpp maa leen di woo bàyyiwuma kenn sama mbokk yëpp maa leen di woo ñu jàpp si combat bi. da ngay xeex ak moom. na def attention de barke de moo Ndiaye alarba bi paase laa doon aw ma lu ma koy wax ci kaw waaye jëmm ji aw ma wax dama koy ñaanal wér di ñaanal sama bopp wér di ñaanal suñu papa yi fi toog ñëpp wér ba jour si yàlla may ma ndam barki Cheikh Ahmadou Kara Mbacké laa lay waat moo man Cheikh Ridial laa yaakaar kii su ma amee lenn lu may ragal ci moom wala di raf damay bàyyi làmb booy bi ñeme naa yaa loolu yaa ngi ma ragal billaahi wallaahi taalaahi su ma jàppee lam di maa la mun maa la doole maa la daq bëre fii am na ñoo fi xam ñu baax dangaa xamul nag moo tax ngay wax boo ma xoolee xam ne damaa bëre ba tas. mënoo maa yëngal. waaw waaw booy ayca jóg leen dem leen. du nuyu suñu papa yi fi toog suñu grand frère ñëpp ñu leen nuyu. kii nii mbër amul lu koy wax moom dañ koo deelum xamul barki ma am seere faal di nga bëri di nga xeex drapeau yëmbal maa koy yëkkati si kàttanu yaara xama waaye kii day wax lu ko neex rek kii day wax lu ko man waa su ma jëm ñoo ma yënd yàqamti ma kii aw ma dara lu ma wax ak moom nga laa koy ñaanal hmm. jàmm ba jour ba barki Serigne Bamba du ko paas kii day bëre day xeex man ci écurie laa yoroo yow am nga ñaata man c'est la première fois ma am combat yow oh, moi aussi tamit c'est fois may bëre bi mooy seen premier combat seen ah, baptême de feu ci lamb bak sëñ moo te dañoo war a ñëw rek tracé mu leer eh, saay loolu du yomb man man ci gétt laa yoroo barki Serigne Bamba Mbacke man ñu ma li mooma def mbër mañu kayre waaw bu soxor def na la mbër maa kër pax bu booyee du duggee barki sëriñ Bam mun ma booy ñëwal mu nga nekk mbër di gërëm sama papa yi fi toog yëpp waaw ay Baba Diaw gaa yëpp du woo autorité ñu nekk mën naa eh, non tey amul woote yow dañ laa def mbër foofu nga nelawee man damaa judd deretu làmb nekk si man damaa mën a football pire mais bokkul si man moo tax ma ñëw taxu mbër man maa judd rek nekk mbër amu maamu mbër amu yaayu mbër amu dara mbër moi je si gañ force bu soobee yàlla. <laughs> Modou Lo mi ngi nii moo téye roi des arènes amul papay mbër eh, eh, papam du mbër kii dama ne ko barki Serigne Bamba Mbacke bu jour waaw na dëggal lu mu wax. man sama gars yi dañu ma yónni yàqu ma de. waaw maa ngi jàllawaat waaw su ma jum sama gars yi des si jéeg gel gel gel gel gel raakit jaajëf ma sant yàlla julli seen def bàyyi sant sama ñaari waajur di leen ñaanal yàlla xaral leen àjjana yaa may dégg di sant waari seng yëpp mit naa waxal si kii teel ngaa woote booy kii teel na woote de ñoon ñëpp duñ ne si géew bi na wax man du yomb de booy morolaa lay waxal doomu morolaa laa ñëpp dégg nañ booy morolaa xam naa xamuma nag après lay comprendre du dem du puus billaahi mu xam ne mburu fopp ko farine ñi may kontaagal ñoo ko ëpp doole maa ko dàq bëri fuuf. ngi dégg ku dàq bëre yal na la yàlla may ndam loolu am lu ma lay wax. maa la ëpp fit bu at bi sifflé boo taxawee dama lay dóor ba sànni la si ginnaaw sànni. fit du wax fit du wax du mës a génn man am naa fit. billaahi man lu ma la wax dara xam la laa lay wax taxawal bul arrière balaa. boo dëgalee sa bopp moo la ni maintenant ñoo ngi yónni yàkkamti ma maa ngi woo waa Njarno di kaay sama dëkk. di woo waa Bawol yëpp bàyyi ma kenn dañoo tere woote ngay woote di woo sama ñoom mag ñëpp jàpp si combat bi xam ni seen doomu ay doomu njarno rikaay kii dafa xamul sax waaw maa woo waa Tivaouane Peulh di woo waa kàcc Bawol waa kàcc séeréer di woo Maodo Amel may na ma cinq car te dara ñëwagul mëma may na ma quatre car dara ñëwagul te kii nag wax naa ko doo dem doo puus après lay comprendre naa ñëw këram añ fa ceebu jën bu neex. di nga ñëw gaalem añ fa ceebu jën bu meex xam na nee na lébu la te lébu moo xam jën yi baax yi. xam bagage yi baax yi. loo moo tax ñëw gaalem. pour añ si pour mu ma jën yi baax. lu <laughs> leer laa de boo ñëwee. Ah. di nga xam ne sommi la ngay yóbbaale ndax tuñuy métti. tuñu métti ak yi nga xam ne sombi da nga ñëw ma wayal la sombi tegal la ko ay tuñu ay tuñu métti lañ dëkk ñu ay mbër lañ dañuy dalante chaque jour chaque jour la ñuy dalante dama contact ba os ba yàq xool sama karam bi. def leen ay Cheikh Tidiane ñaa di jàpp ay ñoom kii di bëree ñoom nga naan da ngay jéem a baan baan yow bu ma la jàppee. foo bëree bu ma la jàppee. toogal toogal toogal toogal toogal. ala waxee laaj. fu mu bëree. fan la bëree waaw ah dégg mu wax. fu mu taaj. sëñ Fall. kon ay mag a fi toog. waxalu am. ku dee sa bàmmeel quoi mag na nag. yaa may dégg li sentir kese la dëgg la neexal ci la bokk waaw bul fen loolu nag laa lu ma lay wax nag maa ngi jégalu nag maa ngi jégalu bu baax lu ma la wax nag. bu abi sifflé bu abi sifflé. waaw ay ay waaw. eh eh, eh yow eh yow ki ngay buux nag. <laughs> tapet lay bëre tapet. dafa tiit daa tiit. daa dafa tiit. yow yaay kan. géejuwaay laa dëkk. yow yaay kan. Mbaye di foncé de géejuwaay laa dëkk. kuy tiit day dëkk géejuwaay. suñu papa Balla Gaye bu ñu tiiree kon bu yóbboo ñu tuxu. Balla Gaye tojul fen ñun séeréer lañ séeréer yi moom laa mujj man bus naa laa dégg nga ma naan ay ragal yow xam nga ma ragal. waaw bu la neexee nga ko kii daan naa dama koy daan incha allah. foo ko moom xam na ko. Ah. ko fekkee laaj ko fekkee. ah laaj ko fekkee <laughs> ñaar. <laughs> fekkee daan ma ko yàlla na ma ko daanaat. bu fekkee bu fekkee daan ma ko yàlla na ma ko daanaat. laaj ko ku ko fekkee. <laughs> su fekkee daan ma ko yàlla na ma ko daan. fan la woon yow daal ma adressé kii kii compagnon ba Yékini oui ah Mbaye Yékini daa tëgg Adrien Senghor. Ah. nga ñëw ñëw nga Mbaye Yékini waaw. ñëw nga non tëgg na Adrien Senghor. yow ñëw nga laa damay laaj. waaye ñii sama mbokk yi ñëwoon nañ balaa loolu maa ngi nuyu ñëpp ah. di wax ni wuy ma li muy wax amul sens li muy wax amul sens. li muy wax amul sens. yow Lamine moo loo quoi li muy wax amul sens. parce que amul preuve dañ fi yàgg. ken kenn fekke ko yàgg waaw. moo tax dagg wax dañ fi yàgg. lool la am si wax mais xam nga ko. billaay dama rus. su ma nee Yanda 2 lay bëreel suñu waa da ngeen métti xamuñu ko <laughs> kii man lu ma def kii dafa ko yow ñaata combat nga am laaj ko ñaata combat la am. 4 combat la am. kii ñaata kii yow yow ñaata combat nga mujjee bëre man huitième combat laa mujjee bëre. huitième combat laa mujjee bëre kii man maa ngi cinq cinq combat mu ne fii dinaa ay fii la li ma. barki Serigne Sall daanul kenn. Eh, bul bàyyi sa waay di. comme daan ma seraan combat mu daan bàyyi sa waay di. kaarapit géej yow kaarapit. Caatu Baay Paate la mujjee daan. Caatu Baay Paate la mujjee bëre. moo ko mujjee daan. Caatu Baay Paate. borom Achaar Baye kooku dama koo xam. <laughs> koo xaw ma ko. da ngay wax Mor Mbaye yow yow mii yow. <laughs> daa bëri wax day takk rajo yi keeng keeng keeng wécc wécc. man défoncé laa wu ma défoncé laa liggéey di am xaalis kii. Mor Mbaye. Mor Mbaye. waaw Mor ne ko mbàyyi wër bi fee toog di nelaw. <laughs> man damaa sonn barki def rek laa mujjee jël nag maa kii boo ñu. Ah. war na Seydou Khadim man damaa bëre ba os kii dëggoo ma de làmb ja déglu ma làmb ja eh, waaw waaw waaw waaw eh waaw eh baza baza ah baza baza baza gis na kii nii kii du mbër war na Seydou Khadim kii kenn xamu ko kii buñ bëree ma daan ko bu xeexee ma duma ko mais dina gaaw waaye ku xeex doo gis jële bi nga ma naan gaaw dina gaaw wuy ma kii du yàgg sax si géew bi Modou Mbaye bul xool boo teeltu ñëw yow doo fekkee làmb ji dan la koy wan dégg ginnaaw ban sant yàlla julli si yéen sant suñu ñaari waajur waaw du nuyu ñu fi toog ñëpp ku nekk turam ak santam waaw di ko ma ñàkk ma woo leen waaw dawal ko sareet yi rungaas gi fàqlaan sarax yi waaw mool yi lébu yi ñëpp correspondant Cambérène Nord Foire supporters na ñëw ma bëgg foo dem am naa fay supporters mais maa ngi woo mafia yëpp mbayaar yi waaw du ma leen fàtte mm. di woo ñëpp waaw fàqlaan arleen jàppoo kaw sara njaga mbay xeer bi forom si kalam ñëpp maa ngi leen di woo ñu seen doom ma ko waaw lamb bu nga mujj gi lamb balaag la mais arène nationale laa bëri woon spécial ok waaw mais pare nga le 10 nice non yàgg na man chaque jour damay pare maa ngi compétir maa ngi finaalu maa ngi demi finaalu lu am na solo incha allah dangay xeex dina xeex dina bëre hmm? dina am lépp bi dina am lépp hmm? kon baax na kontaan nañ ci yow waaw da ñu may ñu woote rek wooteel mu la waxee moom la ñuy wasa doo bañ. kan la ah, Pape Sow ñu ngi koy woo bu baax a. Pape Sow ban ah, sama xarit la moom day jàpp ci combat yi. woo ko woo ko woo ko koy woo bu baax mu ñëw comme ñu daan ñëw ci combat yi. ndax xam nga ni seetaan nga jomaay ba taay waaye tamit seetaan nga dugaar pël ba taay damaa bëgg nga dugal leen ñoom ñaar ñu ñëw jàkkaarloo waaw waaw. non non xamu ko lu tax. non dama ko xamul rek non too waay. non la première fois ma gis ko. xam nga ko. xaw du erreur. mais loolu du erreur. non non ñun ay séeréer lañ war nañu bëre ku ne. Hmm. ñuy bëri ay dix fois. ci benn jour waaw. moo tax ki jaaxal li ma la mën a denc. mooy lan. ma neexee mu gaaw. mu ah. neexee mu yéex. <laughs> li ko li ko nax nax na ku ne. li ko nax nax na ku ne. nax na ku ne. ah. kon mooy dix combats laa bëri neuf victoire Aliou Mbaye Nder kese ma daan. te kooku mën naa daan ku ne. fu mu daan du gaañ. déedéet maa la wax lii. li ma la wax du te question ma xeeb ko. waaw mais bu ma neexee mu gaaw mu neex mu yéex li ma gëm la du question ma gëm ma xam ma. ma xeeb ko de. Hmm. mais loolu dama kaa gëm. Hmm. mu neexee mu gaaw mu neexee mu yéex c'est-à-dire maa mën a bëri. pare nga. si si pare naa. loolu bëre bi moom bëre bi dafay xaanjoo rek bëre bi mën naa bëre moom day xaanjoo rek mais li ma ko mën a xamal mooy contre attaque bu mu am na ko fàtt na ko teg. bu arbitre soufflé moom damay ñëw aw ma lu may sóoraale xeexuma xuloo ma damay ñëw bëri si <laughs> lu gaaw laa ko wax de xeexuma xuloo ma fu loxo bi jógee day ñàkk loolu moom na ko xam. Ah? li ma koy xamal kay mooy falaay moom lu mu ci mën a fat na ko fat bu ku jug. moom na xam lu mu indi waaye bu ma xam lu ma indi moom li mu indi na ko doyee waaye na ma bàyyi ak li ma indi. Ah? lam ji sama làmp waaw di gërëm Baba Diaw sama xarit la sama lépp la dongale moom moom moo baax rek li yëpp moo nag si bañ a fekk mm-hmm. mais dañ nekk ay xale di liggéey di jàmm yéenante lépp su ma ko fekkee ci alal day mel ni sama alal la moom tam moo fekkee sama alal même chose kon bu demee ba lii am si teraanga la sama diggante ak moom mm-hmm. te nekkul loo xamante ni lu ma xeeb la nekkul loo xamante ni lu ma ndaw la lu ndaw la mais garaawul ba bis ba incha allah rek. Hmm. di woo ñëpp waa Medina waa Riz 5 ñëpp di leen woo sama xarit yi. morom la jeune la te jeune a tëgg maa ngi dëkk Ropos mu dëkk Riz 5. amaa chaque jour damay ñëw ndekki ba combat ba. waaw xam nga di ko féliciter di ko encourager. Hmm. won ko ni yoon bi mu jël. Hmm. na xam ni yoonu dëgg la. bu doon ay caaxaan la moromam ni moom du ko nawloo ba tuddee ko bisam. te lu rëy la ko tuddee nag. Mm-hmm. bis ba nga xam ne waa Guèye waaye yëpp ay ñëw bokk ci ci invitation moom de de son moom waaw. macha allah am na solo. mais bëgg léegi woote leen yéen moom may naa leen ngeen woote. may may ma gërëm am teel. teel jox damay gërëm ndeyu mbili bi damay gërëm ndeyu mbili bi muy usmaan Fall sama xarit sama doom ndey waa di gërëm Mor Faye gërëm Babou gërëm Baba. gërëm kii Serigne Fall di gërëm Serigne Munda Mag di gërëm laam mi ma ak ñoo Omar Demande Mor jiilu di woo waa Mbaadaan yëpp ne leen ñëw leen bés bi suñu bés la ñu jàpp gan gi dóor ko duma ko daan ko di woo Daam Fall famille la bu am problème di ko ñaanal yàlla mhm. yàlla jële ko fa mu nekk delloo si ko suñu biir kooku tey xoolal caméra bi. billaahi wallaahi wa taalaahi sama combat mujj 700000 la jël lebal ma ma préparé suma combat ba mu jeex ndog-ndog bu ndaw bu gàtt moo ko dab moo ko Pape si problème yu ñàkk fayda di ko wax nag na gëm yàlla xam ni yoonu ndaw du gaaw te yàlla ki war a réussir ëllëg dong mooy amay dog-dogu jamono. Mm-hmm. tamit di ko ñaanal fi nekk yàlla jëlee ko fa te li li mu ko teg mu nekk li ko li gën ci moom. gën ci ñun ay jege ñaaleem puisque ndaw la. am na ñu ko yaakaar man mii lii boo wax ak yow yàlla laa yaakaar mais sama wërsëg dafa jaar ci moom macha allah waaye balaa ñu dem ci grand combat bi dafa am ñoo xamante ne nii mënuñoo ñàq bañ a yëkkati kàddu su ma nijaay Abdou Lahat Ndiaye lay njëkk woo mu ñëw yëkkati kàddu balaa suma maam di ñëw ak suma papa Amadou Mbaye asalaamaaleykum làmb amaat na beneen xar kanam mm-hmm. muy sunu doyen di sunu nijaay mën naa ñu fi nekk ñëpp yàlla def na muy sunu kilifa bu toogee xel dal na yàlla na yàlla guddal fanam may ko wér fekke ne làmbi démb ak tey yàlla defal na ko loolu te yàlla na fi sax yàgg lool ba ci kanam tey nag ki duma sori ci wax ji Mamadou ci kenn nit rek laay wax muy ni mu bëggee fi mu dëkk muy baaba baaba dafa ñëw ñu ànd di liggéey bu ngeen fàttali ko baaba bi mooy troisième journée mu def ko ci làmb mais mel na ni def na fi vingt journée wala trente ndax fulla ak fayda dëgg la waaye tamit làmb ku ne xam ne ay koppar moo koy def yàlla mi dara tawul dogal na xale yi yëpp comme ci waxaaleel fay na la ba mat baaba dinay jël léeg-léeg di tëgg mbër bala muy dem ci yóbbu reliquat CNG mbër yi ñu ci ëpp jël nañ daanaka seen reliquat ci moom ñi jàppale na leen ñu ay moroom di ay nawleem tey su ma ñëwee fekk ñëpp ci ginnaaw muy ay xaritam waa Médina yi ñoom ñëpp ku ma ci gis rek bu baaba xewlee journée day mel ni moo ko gën a bëgg baaba mhm. donc man du ma tey kenn wala ma sori damay gërëm waa Médina yi nga xam ñooy ànd ak baaba mhm. nga xam ne ñoom la bokkal liggéey ñii jàppale vraiment ak bëgg gi mu bëgg dëkk bi fii nag bi mooy deuxième fois mu ñu fi indi waaw fii ci village artisanal hmm. yaakaar naa xale yu bari dañ koy dégg te duñ fi ñëw hmm. mais boo xoolee toogaay bi tey nga gis géej gi nii ak fii wax dëgg yàlla signature mën ko yóbbu fu ne hmm. ne dañuy wax ndax mbokk ñoo ko wax ku xam ni buñ nee ëtt bi mu juddoo ban la ñu ne ëttu diine ëttu ngor ëttu ngaar mi ëtt bu xam ni xam sa wareef moo fa am boo ci juddoo war nga xattaraayu ba sàmm loolu lépp ba dégg ci way batandooy ba làq ngërëmu meen ngërëmu geño kër baayam jéppiwuñu ko kër ndeyam jéppiwuñu ko dëkkandoo jéppiwu ko sàmm na ngarmeem sàmm na diineem sàmm na ngorom xam na ay wareefam pàtte ndoy ba fii muy liggéeyee di groupe Futur Média lépp lu mu doon ci lu ko jëme ca kanam boo gisee patindooy ba bul sori lool rek lay dox doon un grand citoyen mais un grand républicain sénégalais ku xam ni buñ la xoolee dañ naan mais kii kan la ñu ne jarbaatu Sega Bass Camara la doy na référence waaye wéeruwul ci turu nijaay ak turu baay ak turu maam wut ci tur déedéet dafa bay waaram bokk baaba def nga lu xam ni defaloo ko ko moom rek parce que bi nga def fii li lépp Mamadou li lay daaneel mooy xoolal teraanga ni mu rëy ak góor ni mu bëgg teraanga waaye boo xamul teraanga buñ la joxee teraanga danga naan dama ko yeew yoo mu jël lépp ñun ko lan lay de lan foo jëme lii mu ni dama koy jox ki ma bokkal moo kan nga bokkal mu ni sama doomu nijaay yi moo kan nga bokkal mu ni maag moom it ñoo bokk ndey laxaat njaay ñun ko lu tax mu ni mënoo génne Sega Bass ci biir Youssou Ndour mënoo génne Youssou Ndour ci biir Sega Bass mbokk yi ci ki nga xamante ni moom moo fi teewal parrain bi balaa ñuy ñëw ci ñaari mbër yi muy sunu papa Amadou mbay di déjà moom muy koo xamante ni ci làmb la bokk di koo xamante ni nii ci famille bi la bokk ndax xam ngeen gis ngeen ko ci association des amateurs mu yor ci poste bu am ko jëf merci merci beaucoup euh, bis bi euh, di bisu Pathé Ba ñu ngi koy delloo njukkal ki ko tudde bis bi muy Baba Baba je crois que defuloo erreur parce que Pathé Ndoye Ba boo ko tuddee bis tudd nga ko Médina tudd nga ko l'espoir de la Médina tudd nga ko koo xam ni social lay dox Pape na nee na nit bu baaxee dañ koy laaj ay mbokkam Pathé foog naa ku ko laaj ay àndandoom ay mbokkam ndijaayam papaam magam rakkam jarbaatam ay bàjjanam dina leen waajaa ngi nii ku jàpp jàpp nga waaj ku bàyyi bàyyi nga waaj su ñu bëggee li ñuy wut ñu am ko nañ topp ci ginnaaw Pape Ndoye jàpp ko jàppale ko parce que li ñuy wut mi ngi ci moom li ñuy bëgg mi ngi ci moom te fu ñu bëgg a dem Pape Ndoye mën la fa yóbbee parce que am na relation yi am na capacité bi bis bii nag Pape Ndoye mi ngi koy jël di ko delloo patron di Birane Ndour ah dama ne nag Aliou Seck. bu dul woon dem na kër wax man dem na nañ kaay. bàgg war na mbaam sax baaw xaalis saa ba balaa ma naan bàgg war na mbaam. Sall Bawal ñëwal. jël sa sa adversaire puso puso bu ko xaar xaar non bii baax na jox delloo ko delloo ko gars yi balaa ñuy dem ñu fàttali leen ni ñu ngi woon fii nga xamante ne nii mooy la Sumbe Faro Beach gérant bi tudd Alioune yéen ñi nga xamante yéen ñu seetaan pour ko jot woowu leen ko 77 cent 47 cinq 77 825 47 04 place la boo xamante ne bu neex a féexloo place la boo xam bu am solo. Aja moo maa lay siyaare onge billaahi rajim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di sant suñu ñaari waajur di ñaanal xalif général kuli murit yàlla na fi yàgg trop mu muy suñu Muntaxa Mbàkke ak bépp kilifa diine di profité njabootu maam Cheikh mu Cheikh Sadbu maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp sama papa Baxayda sama papa Sirif Sidi Buya sama papa seex Talla Buya sama papa Sidaat bàyyi ma kenn waa Kébémer di gërëm waa Kaolack rawatina waa Léona Niassène Baye Dame ñas Ali Badou Niass njaboot jëpp gis naa seen taxawaay nañ ci gën a jàpp di profité di dugg Tiwaawan sëñ Mbaye si Abdou yàlla na ko yàlla taxawal baax a baax gis ñaan yi di profité di nuyu ñu fi nekk ñëpp Baba Diaw moom dafa nekk jeune boo xam ne nii li may wax naan doomu Médina la en plus exemple la parce que taxawaayam ci Médina gis nañu ko Médina Rëbës benn la di profité di nuyu waa Rëbës bàyyiwuma kenn di nuyu waa Bawal rawatina sama gox ak yaay sëriñ Modou Abib Mbacke taxawaayam ci man rafet na trop sëñ Amsa borom jaali batul sama maam sëñ Abdou Karim di nuyu ñëpp nag sëñ seex Say nañ taxawaayam ñu ngi woo ñëpp waa Rëbës moo. ay xaaral ma jox moo may ma gis nga bisu le dafa nekk combat boo xam ne nii amateur laay wax ku ci dagg sa biir xooloo doo gis dara. maa ngi lay nuyu mbër. waaw bonjour billahi mina shaytaani rajim maa ngi gërëm jotaay bi yëpp. di gërëm suñu kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk d' abord ñuy woote non à la violence ndax bu ngeen gisee sànq ma may croix bi ni leen bàyyi leen ma bañ a baaxu c' est parce que euh, violence mi ngi ko commencé depuis arène national dañ ne non à violence mais su ma baaxoo mu buux ma wala mu ñëw di def loo xam ne affaire violence la te xëy na ñun yaraax nañ dëkk mosuñoo nekk ay ragal mais dañu xool li jëmale làmb kanam ñu koy def ci signature contrat lañ nekk nag balaa moo gërëm na ba toog plateau te plateau man maay borom lii la ci na bàyyi ba dem ëppun presse mu def fa gërëm Modou Mbaye loolu wax mënul nekk Zal li ma koy wax mooy dafa jël avance su caatu yaraax yaraax la dugg de ci île bi laa ko seer fii ba ma ñëwee sànq te kii du ko teeral place muy rafet foofu yabay mërëg laa fay teeral ci meeru kecceex yi laa koy teeral non yaraax ma teel la kebetu moom yàgg na ci mbër wax ju bëri li ñu ko bëgg a wax mooy Zal Baol moom combat dafa mënul yombu dañu fay xaalis promoteur dafa fayat xaalisam teg ko muy arène nationale muy fii muy ci biir géew bi man tàngal laa xam sëgg da bëm man du sedd sama avance moo demee noonu laa ngi fi jaar ba ngay bëre ba tey nag bëre yaa ngi doon bëre ki champion nangul nañ la loolu mais mbër bu mel ni Zal Baol bëreegu la moom xaaral ba ñu taxaw ba ñu présenté ñu xool ci kàttanu suñu borom man maa ngi wax tey fii bind leen bu dee bëre maa koy def bu dee xeex maa koy def à l'âge de huit ans laay def musul gis nag mbër ci biir géew bu mel ni adversaire bii Zar Baol dinaa la dóor ba ngay gox ay yaboy su ma la ko waxee gëm ko non man xam naa ne doo xeex loolu wax la pour jéem a ceeñ ci maay dama la bëgg wax ne ceddoo ngay bëreel ceddoo ngay bëreel xam nga sànq jël nga fooy bi di liir gars yi ki man sama maam mooy caali seen bi ngay dégg seen caali demb mooy sama maam man surtout buur laa du ma rappelal kenn muy tuus a may rappel kenn muy ci mën naa liir mais man dañ ma war di teral di ma rappelal parce que sama maam moo doon dajale buur yi di leen wax dëgg. billaahi boo joxee fooy bi du liir xamul dara jàngul jox ko fooy bi. boo ko boo ko joxee du liir kii li may wax ak moom bëriwul déglul ma wax la bu keroogee làmb ja position booy saanaan laa lay tegal dama xamal ne ndaw mu daar ndaw koy xëcc maa la gën a nekk xale su ma la jàppee doo gis làmb yow. maa la gën a nekk xale loolu ñu ñu la xamul xamuñu ma lañuy wax yow paa nga dama la bëgg waxam xamal benn affaire gis nga man fi ma teg sama bët du pour yow te billaay wallaay dinaa la noggatu ci biir géew bi. Modou Mbow Modou Mbaye ba Mor Fadam nelawee laa dugg ci làmb avril. 2017 3 ans laa ci def xaw ma 2 ans bëri 9 combats xaw ma 10 combats nee man paa laa 96 laa juddoo xale bu ndaw laa. kii mën na billaahi wallaahi wa taala ba Mor Faram gaañoo Fallou Ndiaye tëgg sama lamb infra rouge. waaw jiilu ci laa bëri ak leeri Fall sama premier combat. kii nañu wax dëgg ci yàlla tax dañu nekk ci ñaati mais nañu wax dëgg barke Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul bi ma yaakaar. terrain déggoo man maak moom laa la wax ñoo fa doon bërendoo moom bëri na terrain déggoo banque bi man dama ko téye à main dem jànkalaar sa koñ fa laa jëflanteeg booy Dakar téye ko à main benn booy daanu ma ci maa bëree ba doyal téye ko te kii li ma bëgg mooy CNG bi nañ ko teg suñu reliquat. booy yaa may laalaal ñoom moo sama premier combat sama premier ah. combat dëgg laa la wax. booy Dakar moo gën a tëj damay wax man dama koy défendre. ci média laay wax du ma fen ci média laay wax wuyu ma ci du ma fen moo gën a tëj booy. boo demee sa koñ laaj ko kan mooy Zal Baol. Eh, terrain déggoo terrain déggoo xam nga laa fa doon bëreel mbay boo ñaa boobu may jàngee Lamine Gueye def seconde yàggul boobu maa ngi ci école bi yaa ngi dégg te booy boo booy rëbës ñoo ma xool ci école bi ne ma kañ jox la combat suñu koñ te ba ma jàppee mbay boo ñaa dama ko dóor deuxième pied toog ci toog ci loos bi ne ana rëbës ku fa des na rëbës ku fa des dañ nga rëbës ne ku fa des gan teeyal man bi may dugg ci làmb di bëre Petit Niang laa fekk mu bëre cinq combats cinq victoires top cinq Modou yow combat boobu yaa mu nekk ci signal yaa ko kii ma téye ko ñëw ci Assane Ndiaye ni Burxaan moom moo ko yore du ma bàyyi ma fen

combat bi gën a gaaw laa bëgg ñu def ko parce que man xam naa ne du ma reculer bu ñëwee doo gis Kër Massar Alaaji Paate bu ñëwee doo gis yow doo mbër lim bee la ci boole mais su ma la jàppee nga xam ne yow da nga war a dem retraite koo daan man nga dajal waxal ci adversaire bi baal adversaire yi ngay lim déglu ma wax la rek gaan nee la bu arbitre ndese ju maag yow arbitre bu dee bëre mën naa ko jàngal bu dee bëre mën naa ko jàngal kii maa ko maa ko ëpp xadaru lamb te maa ko daa ko bëre gis ma ma ne tekk toog ci séeréer bi wax eh, parce que kilifa yi laay wormaal gis nga lamb li tubaab naan science sans conscience nekk ruine de lamb da nga war a dëggal sa boobu ci lan ci respect gis naa commandant ñëw avertir le deux fois c'est parce que xam na ma tax war war respect man su ñëwee da nga war a accueillir nice mais pas que ngay dal sama kaw ak di ma dóor ay genoux loolu kebatu bi newuñu ci sabar promoteur fay ñu xaay pour ñu mel ni muuma dañuy wax gis nga booy bëre Zal Baol di nga wax loo mësul wax di nga def loo mënul wax parce que dafa nekk mbër moom du maye dara dis maay toog sa bopp ci kàttanu suñu borom loolu moom wax la man loolu miis naa ko waaw léegi yéen ñaar ñëpp xam nañ ni xam nañ ni waaw waaw wuy ma dégg dañuy dégloo nag yéen ñaar ñëpp xam nañ ni bëgg ngeen bis bi te bis bi xam nañ ni du yomb la diis bis bu mag lay doon champion waaw kay léegi dañuy woote waaw xaaral waaw defal eh, nànk da ngay woote. bu baax a baax euh, woo parrain bi Pathé Ndoye Ba di ko wax ne comme moom lañu parrainé suñu làmb na wane boppam jàppale ñu ñaan mbër yëpp laay wax nag du la jàppale saal a neex uh-huh. man xam naa ne stade bi bu dee liy duyu maa koy duy te li dis dinaa ko teg lu dis gann ci kàttanu yàlla hmm. di woo waa Yaraax yëpp di woo waa Kër Masar Alaaji Pathé waa Yëmbal Caaroy Malika Touba Ndiassane Canaba Tiwaawan woo naa kilifa diine yëpp tarixe yëpp ma leen di woo suma làmb caatu Yaraax ñu may ñaanal jàmm surtout di ñaanal jaami làmb di ko xam di ñaanal Baba Diaw maanaam làmb ji yàlla na dàq ci ay làmbam ba mu tëggaat ñu ci kàttanu suñu borom ndax ndaw la boo xamee ne maanaam mi ngi sonn di gërëm sponsor bi tamit kii parce que vraiment bu duggee ci làmb tamit ñun mbëri dañ ko war a gërëm ñun amuñu loolu maanaam sponsor yi jàppale promoteurs yi ñuy dox ci làmb xam nga di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne balaa maa mën a gërëm damaa toog plateau te damaa gëm ne ci suñu borom man caatu yaraax maay toog plateau gërëmal fii non pas caatu yaraax wax ji parce que xam la man moom lu mën a xew maay toog plateau mais leen laa ba nga xam maay woo Baba Diaw di ko wax ne vraiment geste yi muy def ci Baba Diaw geste yi muy def ci Médina bi ak Rebeuss gis nañ ko yàlla na ko yàlla taxawu di profité nag di woo ñoo xam dañu may jàppale maay woo sama grand Doudou ñaan from Djilas di woo waa Rebeuss ma kenn di woo Pape Diouf di woo Baba Touré di woo Diop Sy di woo Paul Douanier di woo maître Pape Sène di woo Edouard di woo Ousseynou Ndour sama gars yi ci jàpp groupe whatsapp Zal Baol xaalis bëri la ñuy dajale sarax lu ma bëgg dañ ma koy dox Ilimane Gueye bu Serigne Saliou maa ngi koy woo di woo am di sàmm buri sama papa Ndiak saar maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn gis naa ñi may taxawul waa Njongoloor waa Simal gis naa taxaw gars yi ñu bëgg combat gis naa leen gis naa taxaw maa ngi sant leen gërëm Fall alxuraan di ko wax ne Fall bis bi sa bis la kilifa yi ci jàpp ñëpp laa la mënuma lim di woo sama benn poulain bu ñuy wax Ousseynou vraiment gis naa ni muy taxawoo samay rakk ñëpp lu ma bëgg dañ ma koy jox lépp lu ma mën a def di woo moomoo borom Médina di ko wax ne drapo bi ñu la tuddee nii yàlla na nekk drapeau boo xam ne moo gën ci yow barke sëñ Fallou bis mi dafa nekk bis moom dañ ko respecté mais li ma ko mën a xamal de barke maam Cheikh Ibrahima Fall bi ma yaakaar laa kii bu la juge dina xam ne ñi mu daan bëril ak zaal bool duñ benn da nga mën moom bis bi na dëggal boppam fii mu leer na dëggal boppam boo dëggalee sa bopp ma duma la soo bëree ma daan la maa la gën a os. xam naa ne doo ah non signature nag mënu fi amaat nag vraiment waaw waaw ba tey wax maanaam saaga yaa xam ne xeex la te yaakaar naa bu ñu diggee ay dóor nga xool li koy wàññi moo gën ngay xool li ko yokk presse bi di wax na la 5 damay def sama open presse yaraax na ñëpp teew incha allah ah. ñu waajal bés bi pour mu taaru terrain montagne magasin arrêt magasin arrêt magasin waaw le 5 man maa ngi koy def lundi rëbës loolu di laa koy def open press bi le 5 woo naa ñu gars yi bëri wax Lamine yow woo naa la wax la ko Zal Baol open press am jàll na waaw ñaari équipe rek waaw kon yaay xool noo taxawee ñaari équipe lay yónni moom du dem day yónni booy ñu dem kon gars yi le rendez-vous est donné Baba Diaw borom Thiam production gars yi mi ngi noonu la rendez-vous est donné incha allah di leen jox rendez-vous ba le 10 bëre yëpp wallaahi combat bii ma jëm moo ma ci gën a neex. nga gis combat bu neex. barka alxuraan bu jëlee tànkam dugal ko sama tànk yi boobu lay gëj a bëre. maa ko daa bëre fuuf daa ko bëre ndànk sax. danaa ko damm ba toog ci kaw. bu fekkee dafa am fu mu lu ma bëgg a wane.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 bu bëggee ci làmb ji barke yow mbal xiyaam la ko baar ku yëg da ngay ñàkk